Williamboro. Aja. Aja. kaay bisimilah. Williamboro. Eh, war a génn ndax bi ngeen a ñëw. Hmm. dafa ma am rendez ma war a dem. Ah. waaw eh, comme chantier bi eh, sama chantier bi ma gañe woon damaa war a dem foofu waxtaan ak ñooñu ndax début bi laa la war a jox dama la war a jox début bi. crédit eh, eh, ngi nii eh, carte crédit soo ma soxlaa rek nga def ko fii nga dugal ko fi woo ma. déglu ma ni gars yi yow xanaa na ma woon. ah ok mais dama ne la chantier bi falaa noonu la dem. yow xanaa déglu ma gis nga kuy dem kuy ya. dem màkk ba dajeeg yonent bi nan ngay def. waaw wax dëgg yàlla loolu loolu dëgg la loolu dëgg la déedéet déglu rek déglu yow maa ngi ñëw toogaguñu defaguñu dara sa nijaay nga may jox ay carte naa ma da ngay dem. waaw daala ko ñaan sarax ma ngir yàlla rek ak ñëw gi doog a ñëw nii rek bàyyi ma ma dem. ndax loolu xam nga nag su ma ñëwee. yow nag yow damaa nag mën a

dama ni la ki kan la yow da nga xëyoon sant wala fo demon pour ba la eh pour ba la dama ni la bu da nga nani won da ngaa mandi feñ nga ne ban pour la yow kan nga commencé lak mburu te yoguma ko la bëgg xam santi bi la wax santi pour la woon dama laa bañ wax pour ba la lakk mburu ngay mer way dama lakk mburu li pour ba la waaw yalla bax na parce que gis nga abda bala mu fi indi waxon na ko du wa eh dama la non non non non non non non ah da nga demoon pour bu soobee yàlla tey kër gi du maag yow ca biti nga jëm. ma ne la ca biti nga jëm. waaw yow ngay gan ñëw tey nga bëgg man ma génn kër gi nga bëgg man ma